d'accord alors ci ci biir relation ak euh, entre Barthélémy Diaz ak euh, Bamba Fall est-ce que mën nañ envisager peut-être benn retrouvaille bu fay am bu fekkoon ne peut-être s'il venait à changer par exemple. je ne pense pas parce que man fréquenté naa Bamba. Mhm. fréquenté naa Barthélémy. gis nga xasuma ko nag parce que bu dul dara sax am na lu may sedd ndax xëy na bés man bàyyi naa ko sama yaay décédé mu ñëw ba ca kër ga jaale si ma. Mhm. donc moo tax yenn wax yi. bugguma sax di ko génnee sama gémmiñ parce que mhm. meluma noonu yarewuñ ma loolu mhm. mais bokkuñu sax du ñuy nu ñuy toogee ci biir nit Bart doo toog mukk ci kanamam mu yàq nit Bart doo toog ci kanamam mukk muy xas nit nitu valeur la te li mu gëm mën na cee dee mhm. ni mu gëm mën nañ cee dee moo tax nag ñun bañ ko seetee ba seet xam ni yamu yamuñu jikko bokkuñu doxalin li mu gëm gëmuñu ko ñu dem ànd ak Barthélemy mu jàppale ñu lool nag bokkuñu sax jikko moo tax te tubaab nag dafay wax kii sa ressemble sa sàmm nit bu ñu bokk bokkul jikko mënuñu ànd te ma gisuma fu ñuy àndee. d' accord d' accord alors bu ñu ñëwee ci résultat élection législative yi am na ci yenn gox yoo xam ne Yewwi gañe woon na ko euh, ci euh, local yi passé tey ci euh, législative yi mu perte ko de même que Benno Bokk Yaakaar de manière générale yan enseignement yi la ñu mën a tirer ci décision sénégalais yi ci élection yi. waaw parce que man je pense que ni sanctionné nañ ñu bari nag. Mhm. parce que damay ñëw ci commune wu Dakar bi nga xam ni fi laa nekk. tey boo demee fu mel ni commune nu biscuit biscuiterie ak commune nu Wakaam maire bi dafa dafa gagné ci bannièru PDS la demee. Mhm. gagné élection yi mais ba mu demee dugg ci benn bokk yaakaar dafa perdre biscuiterie yi nga dem Wakaam. Mhm. maire bi boo ko gis-gis la bokkoon ba mu demee dugg ci benn bokk yaakaar dafa perdre Wakaam donc maanaam daal. ñun Barth jugee na ci 12 commune léegi dem ci 19 commune mhm. te commune bi nga xamante ni depuis deux 2012 benn bokk yaakaar moo fa mës sa nekk di ràññee muy gore sax dañoo bàyyi benn bokk yaakaar. Mhm. te gis nga li leen li leen sonal mooy gis nga kilifa du waxantu xam nga tey ñu demandé la ne la ndax troisième mandat da koy def nga toog fa naan nii wii nii non Macky lu ko sànq nii wii nii non la. Mhm. si parce que réew mi dañ koy bañ bëgguñu ko te gis nga lii. kanam la jëm te Yewwi Yewwi Yewwi Askan Wi bëri ko ci mbartal la rek puus mu dem puus mu dem léeg-léeg sax ñu interpellé ma ne ma député yi ngeen fal est-ce que bu ñu demee foofu ñu jënd leen ma ne ko fii ku ñu fi jënd sa affaire la ndax ku dem dajeek askan wi. mais mais question la aussi ah. parce que bu fekkoon non li ma gis ci Sénégalais yi léegi nii. Hmm. ku yebu def très attention. parce que ñu ngi koy ruumandaat naan Macky Sall mën na dem tête bu dul ci résultat dem ba assemblée nationale bu fekkee ne blocage nar na am. mu am ci député yu mu jaaree jënd leen et cetera. vous ne craignez pas ça loolu yàgg na Sénégal ah. mhm. mais nag euh, koo fi def di ko gis de lu leer laa lay wax nii bu fekkente ci département nga jóge wala leneen xamal ni yow sa carrière politique yam na fi ñooy choisir ah. mais impact bu muy def ci Yewwi Askan Wi ak taxawaayam. aussi est-ce que du doon dina mhm. dina doy waar mais nag euh, damay sant yàlla bi nga mhm. xamee ni Yewwi Askan Wi à chaque fois boo gisee ay hommes de valeur ak femmes de valeur ñoo fa nekk. même su amee ñoo bokkuñu. am na ñoo xamante ni pal rek moo leen intéressé bu ñu xasee ba falu. mel nañ ni ñuy mel mais am na ñoo xamante ni falook ñàkk falu lañ yemale. li ñu gëm dañ ciy nekk ku dem nag ba assemblée nga changé yow ak peuple sénégalais bi la loolu yoonu kenn nekk si te ñoom nag sénégale yi ma gis. xam nañ nag naka la ñu réglé seen problème. d' accord alors yéen a ngi koy wax aussi démb Yewwi Askan Wi génne na benn communiqué euh, Yewwi Askan Wi est sûr qu'il a euh, que la coalition elle a gagné euh, les élections ñële aussi ñu ngi crier victoire euh, yéen a ngi craindre ay yenn euh, magouille yoo xam ne peut-être état central bi mu ngi koy def avec peut la complicité ni ngeen ko waxee seen communiqué avec la complicité de du ministre de l'intérieur et le déploiement Euh, euh, éventuellement de la police et de la gendarmerie pour réprimer comme ni ngeen ko waxee mais loolu yëpp fa ngeen ko teg est-ce que am ngeen ay preuves de mais, tout ça joxluwul mais preuve yi dafa la euh, preuve ma mooy urne yi mhm. résultat urne yi di ngeen amul euh, confiance ci institution yi nga xam ne ñoo war a taxawee loolu amuñu confiance parce que ñàkk sérieux bi ñàkk bi am ci ci institution yi ngay wax nii mhm. moo ñu yóbbee ñu def list ñu bàyyi titulaire ya jàll dindi suppléant ya mhm. ñooñu lan lañ leen lan lañ leen di wooloo ñu ne déet na waaye nga toog ba minuit naan maa gañe ak réew mi urne yi li ñu wax PV yi li ñu génnee gis nga nit du ca bàyyi dañu bàyyi caaxaan et puis je pense que ni nag ñoom dañoo war a dajaloo nag def mea culpa seen bopp. Mhm. xoolaat nag seen doxalin xam ne nag nguur yàlla rek a dul jeex lu gis dafa am terme dafa am fu mu yem. Mhm. d'accord yaakaar ngeen ne transition bi euh, mën nañ ko tuddee noonu pour euh, jege benn bokk yaakaar leer benn bokk yaakaar leer yeewi askan wi yaakaar ngeen ne ak détermination wu euh, état bi fi nekk ak coalition bi fi nekk. Euh, yaakaar ngeen dina yomb parce que yéen vous les avez habitués à ce que bu ñu defee coup de forcing rek ngeen génn xataraayu après bàyyi ñoom affaire yi jàll. waaw je pense que nag xam nga li ñu naan 2017 defoon nañ ko. Mhm. ñu gagné Ndakaaru ñu dem toog ba 4 heures xaw ma 2 heures du matin génn. Mhm. ñe ñoo gagné def li ñuy def mais nag euh, li ñu naan euh, donne yi changé na état d'esprit yi bokkatul. Mhm. parce que xam nañ ñii ñu jàkkaarloo nii. rapport de force rek lañu ñu xam xamuñu dëgg xamuñu yoon. Mhm. lu leen neex lañuy def waaye nag la woon wëndi na liñ naan lu mu leen jaral rek ñun jaral nañu lu ko raw. Mhm. d'accord euh, cela veut dire que peut-être Macky Sall devrait se préparer à partir. mais loolu mooy yoon moom bu ko bu fekkente lii fi génn yëpp amu ci benn njàngat. Mhm. man xamatuma ci président dara. ban jàngat la Yewwi Askan Wi justement moom war a woon def ci ci ci situation bi. non fi mu nekk nii Yewwi Askan Wi li ñu war a def def nañ ko parce que xamoon nañ ni mbooloo mooy doole. Mhm. Euh, devant Macky Sall il fallait que ñu am benn opposition bu dëgër. Mhm. te loolu comprendre nañ ko xam nañ ko ndax ci loolu lañ dox ba li am tey parce que lii fi am si inédit musul am Sénégal ah. musul am Sénégal. cohabitation bi cohabitation bii nii mhm. mais léegi naa sax kenn naan du cohabitation hébergement la mhm. waaye dama koy dëggal mais mais c'est serré quand même waaw il waaw mais ba tey mhm. euh, je pense que ni ñoom li ñuy xëccu ay benn député la ci benn département mais ñu li ñu gagné moo ëpp doole toutes les grandes villes yi Askan Wi gagné na ko te ñoo ëpp ay député ñoo ëpp ay député gis nga mag du caaxaan dëkk bi dafa soxla dal dafa soxla jàmmate te ci ñoom lañ koy xaar ñu def jàmm na def yoon xam ne nguuru yàlla rek moo dul jeex. ñu changé na comportement changé doxalin je pense que ci loolu laa leen di woo. d' accord euh, Barthélémy Diaz entre guillemets roi de Dakar Dakar won nañ ko ne euh, moo fi ne quel soit. yi nga xam ne njiitu réew mi waxoon na ko fii ne woon na fii il faut euh, nommer par décret le maire de Dakar am na ay yeneen mesures yoo xam ne annoncé woon na ko Barthélemy génn euh, xataraay lu nekk mu dugg ci gars yi reculer euh, finalement dafa mel ni Barth la Dakar waayu bëgg non non c'est pas c'est pas finalement dafa mel ni. <laughs> lañu choisir. te loolu moo am ndaxte bi muy gagné. locales yi. Mhm. mën naa wax ci douze communes la gagné sur dix-neuf. Mhm. tey nga jóge douze communes dem ci dix commune communes Dakar yépp mhm. ñu ne la yow la wóolute foofu la mën a yam fal nañ la maire yóbbu la assemblée kooku ko wóoluwul nii du ko def def ko nag ak manière dakaar waaye dañu fal Barthélemy ak manière. te nag ki ma xam l'homme que je gor la liggéeykat la te c'est un di de défi. d'accord euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui Barthélémy Dias attentes yi bëri na de finalement dafa dem ba yaakaar bi ñu daan faral di am ci président de la République. Dakar waaye dañ ko jël delloo Barthélémy Dias. waaw est-ce que il il il, il tient da koy waxtaane tout le temps ñun ñi ne ñoo ay collaborateurs am daf ñu koy daf ñu koy daf ñu koy wax. Mhm. tout le temps moo tax fu ñu toll rek dañuy góorgóorlu dañuy dem ci askan wi nekk relais. Mhm. nekk relais di di ko di ko liggéeyal ci ci ci base bi. Mhm. di xam soxla su base bi di ko ko di ko ko di ko ko yeggee parce que je pense que loolu rek la la deseel Dakar waaye mooy mhm. Dakar waaye sentir que ni am na ñu maire mu ngi sonn ci ñoom di sonn ci seen soxla et puis d' autant plus que moom bi mu ñëwee ville de Dakar dafa jël loo wax mu ne man damay nit moo ma soxal l'humain mhm. dafa bëri ci kàddoom lu muy ñëw Barth dafa fonk nit. ba pare nag xam nga lu ma gën a neex ci moom dafa bëgg waa góor. Mhm. il aime les défis. waay challenge challenge dafa bëgg waa góor. Mhm. moo tax day def ba des fois nee naa ko sax yow ku la jege day sonn gars yi dañuy xelu te day dox noonu de pour vous dire que defar dafa leen raw. Mhm. gars dañuy daw pour di ko topp ci. d' euh, pour revenir à à Bamba fal am na euh, yenn question yu mu posé concernant euh, lu jëm ci yenn financement yu jëm ci askan wi yenn aide yeeg yooyu nee na ba tey comme lu ci jëmee ni aide tabaski par exemple amul benn appel d' bu ñu def cest à procédure yi daal Bart dafa ñëw sànni fële def li muy def moom Bamba bëriwul sax li muy def sa secours parce que commune euh, d'arrondissement yi. Mhm. dañu baaxoo di def sa cour mhm. di ko jox seen askan. mais comme dafa yàgg ville de Dakar nekk fa adjoint maire lépp lu mu indi ci commune Médina rek ville de Dakar la ko daan jëlee et puis je comprends parce que amatu fa dara amatu fa dara dañ koy jox askan wi directement. Mhm. parce que boo demee fu ñuy daas directeur bi fa nekk ay assistant social ay assistants sociaux ñoo fa nekk ay. éducateur ñoo fa nekk. Mhm. dañuy def enquête sociale dix-neuf communes yëpp dañu am seen quota ñu leen koy jox. Mhm. te dugg na ci askan wi. ren jii rek lañu attribuer ci ci secours pour la Médina mille yi teg na et j'en parle en connaissance de cause ndax Médina la dëkk. Mhm. et plus de cinquante personnes yi ngeen yóbbu à la Mecque. waaw am fu ñu ko teg nag. dafa am fu ñu ko teg parce que nag ñun xam nañ ñu ko seqal.